man Mohamed. fan nga jóge man euh, France laa dëkk fa lay liggéey Valence dëkk bu ñuy wax Valence. fi Touba fekk la nga màggal si ana ban yëg-yëg nga si am. waaw sant yàlla bu baax ndax euh, gëjoon naa màggal si euh, moo ko fas yéene woon déwén daal di ñaan suñu borom amoon ay jafe-jafe ndax mbirum corona bi téye ñu ñuy laaj laisser-passer yooyu. Euh, yàlla dogal na nag am naa fi fi laa jàngee Sénégal moo tax ma dégg wolof noonu yàgg naa fi fi la màggee donc diggante asilem ak waagu ñaay euh, ba tax na mën naa kayit mais mos déposé moon carte d'identité ak passeport danañ ko doon laaj ma dem nag yone wane certificat nationalité bi am consulat ba ñaan gars yi may ma laissez-passer ci laa mën a ñëw sant yàlla bu baax waaw xiwal màggal taw fiix daal ñëw fekk la kër sëñ Jili ana lan nga ñu mën a témoigner ci sëñ bi. waaw jii li moom euh, sa mbokki taalibe bi Baye Fall bi moo moo ma booleeg moom euh, ci laa ci moom xamante ne moom ak di borom baax dëgg-dëgg borom borom tawféex waal maanaam lu bëri sëñ Fall moom moo dellu ci moom macha allah. tey nekk ba Valence ci biir France. waaw di mën a dund foofu ni di wane ni murit nga ak yëg-yëg nag nga koy dundee sa mbokk balaay foofu. waaw foofu de euh, yàlla dogal na fi ma nekk ca Valence moom euh, dëkk bi ma nekk xamante moom fa nag ay mbokk taalibe waaw moom koy dund man kenn sa biir xol waaw di ko dund dund dund jullit rek dund lislaam dund taalibe waaye sëñ bi fii la nekk daal bu nekkee fii rek moom doo wéet foo mën mënta nekk rek moom doo wéet ndax yaa ngi moom saa su ne ah mouridisme ah, ah, mbirum yàlla rek ndax man daanaka sax di ko di jégalu ci kàddu yi waaye ci ñi daan ngàññi mouridisme la fekk te xaw ma ci woon dara gis nii rek di wax waa mel lu tax mu demee nii di kaas yu mel noonu waaye euh, jamono def bakk la woon fekk sama benn bàjjan moom euh, xaritu soxna Jeng di soxna ci sëriñ Modou Kara la woon ñoom ñaa ñoo màggandoo woon léegi moom mooy moon suñu suñu famille moom rek moo ci nekkoon murit ci nag laa nekkoon di réviser tirwaar ya amoon ay ay xasaayid sëñ bi may xam boobu man xaw moon sëñ bi moo bind téere yi dama xëcc tiir waaye rek tombe ci gis ay bind ma xool sam dañ ko bind en français ma lire français bi liir phonétique bi gis traduction affaire bi yem ma ma jël rek naa ay ñaan ñaan yu kéemaan la boobu xasida bis bismillah bismillahi bila manaay yan mu lu xay walanti xaay xofat naa tur bi nag xaw ma waa boobu la woon maayi bu waaw kay mu waayi bu naafi moom la Eh, mbe bo man xawmako na xaw moon dara ci mouridisme dama gis rek tombe jël ñaan ibi kayé bi fekk bon jotuna na jang surtout ci ci histoire géo sax bo may non def bac c'est lendemain la woon bac té lima ma xaj xaj xaaj yi laa jàngoon bu déssat xaj mëntu ma woon jàng li ci des ci benn fan ma ne may di bik may bi fuma tombe rek ma ma ma jëm jang yalla baxna def ubi yalla dogal ma xey suba si ñu jox ma sujet boobu may jàngoon ci guddi waaw mm-hmm. te boobu ba léegi xaw leen ci sëñ bi parce que xaw sax li may jàng sëñ bi ko bind mais après ci noonu noonu yàlla ya, xew ya, jàppale ya, ma ma am bac sant yàlla bu baax ba ma ñëwee nag France nekk étudiant dal Reims dëkk bu ñuy wax Reims nekk ci benn eh, gis ay eh, mbokki sénégalais donc di ànd ak ñoom ñoom ñuy dem ci daayira topp leen ci laa xamee nag affaire mu ma si woon dara commencé di dem ci daayira yi di jàng xasida yi di xool ma demee bay jàngale ak sama xel dellu si gannaaw ne waa lii de mosoon naa ko gis seen ci laa xam ne xam ne li li ma fekkoon ci tiroir mooy sëñ bi ko bindoon. Mm-hmm. ci laa xam ministre bi nag commencé ko gëstu ba yàlla dimbali ma ma dugg ci murid ba jébbalu waaw. bi nga njëkkee ñëw Touba jàng ki ko bind moo nekk fii moom moom fii ban yëg-yëg la def ci yow. Kéemaan ndax bi ma ñëwee bi ma njëkkee ñëw màggal la tombé boobu maa ngi dal kër sëñ Mourtada Fallou bu sëñ Fallou ak nekk ci rakam sëñ eh, Cheikh Ahmad Yadaali waam boolem ak ñuy woowee Galaas moo ma yóbbu sax ba ci sëñ Saliou 97 la loolu waaw ma ñëw gis sëñ Saliou eh, sëñ Béthio toog ci nejoor waaw boobu laa boobu njëkk gis sëñ Saliou Euh, màggal gi ni ma ko dundee surtout ba ma demee ba siyaare ci xabulooy yi moom duggee ci xablu sëñ bi moom la ma yëg moom mënu ma la wax sax lu mu doon samay euh, euh, samay ci karaw yi dañu doon jóg la yëg lu wax dëgg yàlla. Ah, xëy na sax ñu baal ñu ci kàddu yi boo daan toog dégguñu ne nasaraan bi ni mu doon jëflanteeg sëñ bi. nga dem ba ñëw gëstu parce que loo loo loo gëstu rek. gën ko bëgg ndax Serigne Touba lo koy gën di jégué rek mu di la gëna xir ci bopam tay bo togué ba mu yagg comme euh, lélé ñu xalaat ni daal ba sa xel dem ni tay daal bu ñu waxee ni nit ku wéx da serigne bi doon saafonteel ci jamono yoyu en tant que tay nit ku wéx nga drapeau Serigne Touba nek ca fa nga nek doon fa kay ndax euh, fa nga nek comme ni ko euh, ko fa ay sénégalais mais ya nga gëm Serigne Touba di dox doon fa exemplaire tay tay boy dox ci biir ñoñu en tant que nit ku wéx ba say nawle wala say morom di xool di yëg ni yow kii taalibe Serigne Bamba la nan koy dundee ak ban fierté sëñ bi moom li mag nañ koy xamee mooy dangay dem ci source bi maanaam boo buggee xool rek ñi topp ñi ñi wala topp mouvement bi wala yooyu rek màggal lay doon après bu demee mu jeex wala doon loo xam ne du du du dis du profond foog nga xóotal mbir bi dem ci bindu boppam. Mhm. boo gëstoo bindu sëñ bi ci ngay xam ne eh, mayu yàlla aajowul ci. ci xet ajowul ci sant ajowul ci der ajowul ci ci fo bok ndax suñu borom mom ndax li suñu mom am ku ko ci tek beut xam bëgg bañ di nga xam li suñu borom rek may nit nit mënu ko may bopam waaw te bo gëstoo ay bindu sëñ bi mom di nga xam ni di nga gis ni ki wax deug fa yalla moy buntu buntu rasul rasulillah moy buntu rasulillah ndax turu ndax khutba euh, yi bëri nañ fi jaar nañ fi ku ci mel ne Cheikh Ahmad Tidiane di sëñ Chérif bu mag ku tedd kooku sët ci sa yonent sallallahu alayhi wasallam doon ci jamonoom doon xutba jamono ñeneen jaar nañ fi borom xam-xam yu mag ay ak waaye euh, sëñ bi moom moo ci jiitu ci borom dër bu ñuul koo xamante ni dem ba ak xut rek yàlla suñu borom def ko xutbu jamono te booy gëstu mbir yi ñoom ñëpp. sëñ dafa jaar ci ñoom dafa jaar ci seen tarxi tarix bind ci ñoom wax ci ñoom lu lu lu kéemaan ndax euh, ni ñuy jaawale leen mooy lu may gis man lu faral di gis fii dëkk bi mel ni Sénégal ñun ñi dañoo dañoo dañuy faral di boole mag ñi te loolu du yoon dafa mel ne nga taxaw di bëgg def euh, comparaison ci yonente yi suñu borom tere na ko sax ci alxuraan waaw Euh, lu mel noonu la nga lu ñuy bëgg ñenn ñi def fii te loolu erreur la ndax ku ne mën ngaa bokk fa nga bokk fépp jubluwaay bi yëpp benn la mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi jëm ci suñu borom wala ku mu yax nag am am foo foo foo jokk waaye jox cër mag yi ndax ñooñu ku leen dal muy sëñ bi sëriñ tubaa muy Cheikh Ahmad Tidiane muy sëñ Xaaj Malik si muy euh, Baye Niass Eh, yaakaar nañ da ngay dal seen suñu borom ngay tëkku tëkku woo leen de c'est comme sax ñoom dara dara dara suñu borom moo leen def li ñu doon te suñu borom moo ne ku tëkku samay samay samay nit man mii nga déclaré guerre waaw ah, loolu nag gars yi war ci bàyyi xel bu baax a baax ndax seen bopp la ñuy gaañ léegi nag eh, comparaison boobu war warul ku ne du bokk fi nga nekk jox cër mag yi ndax mag ñi ñoom seen diggante dafa rafetul ñoom li ñu sekkoon du rafet lañ mës a sekk sëñ bi nag moom sëñ Tuubaa moom xaadim rasul li khutba yi fi beuri yeb jaar fi déggoo kenn ko ñuy wax xaadimu rasul moom képp te boo mom murtani fu ñom ñu xam ki señ bi chérif yi deug deug deug daymaan yi ñoom Sidiya Baba lu ñu wax bind wax bind nañ sax ci señ bi señ Cheikh Sidiya nee na kuy lam lamé nax yow yaay xaadimu rasul diko wax señ Touba mun na ko ñaari mom mané a ne yàlla dalaa nattu nga nek ignorant xam nañ koy waxe ci manam ko xamul dal wala nga nek naafiq ndax mu dëgg dëgg mooy xaadim rasul mu rasul moom moom moo ko sa sër mooy bunt bi ci ci ci yoonam bi salaay salaam loolu am incha allah jërëjëf aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا توفيق يا توفيق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والختم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره عظيم